arbitraire la comme niñ ko defee Amadou Ba defee ko ko Pape Sané bu dee ku ko dénoncé rek ñu ñëw di la kirtim kon nañu ñëw ni ma kirtim parce que je dénonce ça avec la dernière énergie du dëgg du yoon li mu fi wax boo dee borom kër dégg ko da ngay am lu la naqadi di encore massawu au nom de Pastef au nom du bureau politique au nom de Ousmane Sonko ñu ngi massawu groupe Walfadjri ak bépp presse bu nga xam ne tey ñu ngi leen muselé dañu leen di essayer museler mais kenn munul fexe ba du ñu wax parce que aujourd'hui c'est la démocratisation de l'information mhm. di ci yokk ni suñu arsenal juridique bi nañ ko changer nañ ko xool mhm. parce que les diffusions de fausses nouvelle actes de nature à compromettre la sécurité publique dafa yomb c'est-à-dire c'est des choses qui ne vient pas de notre arsenal juridique nga xam ni euh, c'est ça touche nos traditions mhm. dañuy jël benn mbir bu nga xam ni tubaab yi colons yi ñoo ko fi indi ba léegi ñu nekk ci sëgg ci di ko juger noonu dañu war a réformer les articles là ba fexe ba kenn du mën a tëj nit ci lu dul dara wala téye nit ci lu dul dara lii c'est regrettable te pourtant mën nañu ko réformer nu nous promettons que ces choses là bés bu ñu accès au pouvoir dafay daj ñu daa di duggaat sax ci mbir moomu nga xam ne moo leen di tax ak si au pouvoir muy élection présidentielle candidature Bassirou Diomaye Faye fi ñuy dugg mooy euh, question bi nga xam ne sax moom lañ ci posé mooy ndax l'heure la wala l'heure maanaam est-ce que euh, comme li ñenn ñi di wax aussi Bassirou Diomaye Faye c'est le vrai plan B de Pastef les Patriotes yow mi bokk ci bureau politique bi nga porté ci des précisions. pour l' ba siiru Diomaye Faye la ñu wax. nañu ko ne kii di pare ne Diomaye Faye mooy pare ne ki nga xam ne dafay nekk président de la République. Mm-hmm. lueur l'heure loolu ñu nekkuñu ci. ñun suñ stratégie duñ ko teg ci kaw table bi bien sûr mais pour l'instant li ñu mën a jàpp mooy Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne am nañu confiance ci moom que mën na porter li nga xam ne Ousmane Sonko mën na ko porte kooku la ñu wax nañ ko parrainer hmm. et je crois que depuis lors ñëpp ñaa ngi def lu nga xam ni lu am importance la ci pare parrainage bu nga xam ne moom lañ doon bañ parce que au fond ay primaire la au fond bu ñu amee un million deux million de parrains c'est révélateur que ñun ñu sommes majoritaires au Sénégal loolu nag lañ doon bañ malheureusement heureusement pour Bassirou ay Faye jox nañ ko ay fiches de parrainage il ne s'attendait pas à ce que ñu indi beneen nit bu nga xam ni euh, dafa bokk ci ñun ni na bokk ñoom pour ñoom sonk est omnibulé par le pouvoir malheureusement le réveil a été brutal te noonu la ñuy mun mën mën nañ xaar yeneen candidat kon biir Pastef. mais ñun stratégie la ñuy demee. ñoom dañuy teg pion di pousse ñuy teg pion di pousse te nag damay wax nous sommes experts en matière de jeu et nous gagnerons incha allah. vous allez gagner selon euh, Birame euh, Khoudia euh, ci côté boobu rek déjà gis nañu parrainage yi nga xam ne noonu la démarré fi mu nekk nii mais est-ce que par rapport ak candidature am du une candidature risquée. mais mënul nekk une candidature risquée risquée ci lan man li ma bañ ñu ni ñu ni tël rek am ñuy am ay euh, mauvaise appréhension loolu baaxul loolu baaxul aujourd'hui euh, Bassirou Diomaye Faye amul dara lu nga xam ni euh, condamné nañ ko ci am na nag luñ koy toppee loolu ñu koy toppee kenn jugé gu ko amagul condamnation te Bassirou Diomaye Faye buñ ko taf tafee woon sax jugé que am na droit ñaan appel donc loolu yëpp dafay prolonger la procédure donc tey kenn mënul ni Bassirou Diomaye Faye na figure pas dans la liste électorale bu dul woon loolu duñ ko jox fiche de parrainage Ousmane Sonko mi ñu wax ni figuréwul sur la liste électorale nanguñ ko jox comme jox nañu Bassirou Diomaye Faye nag il est électeur et éligible en attendant yooyu nga xam ne ñu ngi koy jéem a wax mais loolu fileeg 10 jours 20 jours 30 jours 2 mois mënut a sotti donc il est électeur te incha allah dina dem. Mhm. ci côté Ousmane Sonko parce que yaa ngi koy wax que ni euh, en attendant euh, am na lu nga xam ne moom war a def muy dem euh, tribunal de grande instance hors classe de Dakar ginnaaw bu cour suprême décidé ngir yóbbu ji ko fa Ali Siré Ba ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ni ki aljuma bi ñu weesu décision bi nga xam ne moom lañ jël yéen fi mu nekk nii lan moo ci nekk seen taxawaay toog ko dem tribunal de grande après ñu épuiser les voies yi nga xam ne moom la ñu war topp yëpp wala dafa am leneen lu nga xam ne moom ngeen di waajal essentiel pour seen leader mën a génn ci kaso gi bokk ci présidentiel. xam nga suñu leader génn ci kaso bi bokk ci présidentiel bi loolu mooy suñu xeex guddi bëccëg suba ngoon maintenant ñi ñu jàkkaar lool peut-être amuñu orthodoxie républicaine nga xam ni dañuy jël justice di ko dugal ci biir ay dossier politique loolu moo gàllankoor Ousmane Sonko ba fi mu nekk te sénégalais yi def nañ ci liñ ci war a def yëpp ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant aujourd'hui la lutte ba jusque euh, ba ba fu muy mujje mais fii ñu toll naa ji mi ngi dem te kat bu ñu continuer nii xëy na dinañu dem ba nga xam ni ci fin bi la ñu jox dëgg Ousmane ko parce que bul fàtte nii euh, munoon nañu yemale affaire bi Cour suprême munoon nañu ni bon finalement cassé nañ ko et puis euh, na yem foofu mais dañ ko renvoyé pour dilatoire dilatoire ah boobu stratégie politique la parce que justice jàppee li li justice dilatoire la bàyyi mu dem pour ñoom du ñu indi beneen candidat ah, dañuy bàyyi ba le huit ñuy jéem a xool nan la ñu kii parce que am nañ trois députés nous allons explorer toutes les possibilités pour jël réew mi parce que l' essentiel c' d' accéder au pouvoir et képp ki ñun ku accéder au pouvoir kon Ousmane Sonko moo accédé au pouvoir parce que il aura son mot à dire et il va aider à gouverner parce que du benn nit mooy gouverner nit kuy gouverner ñu bare ñoo koy xelal ñu bare ñooy ànd ak moom donc Pastef ak ñi mu àndal ak coalition bi mu àndal fas na ñu jël réew mi ci loxo Macky Sall. est-ce que finalement obligé wu leen changer de cap président de la République réussiru ko obligé euh, waa Pastef ak ñi àndal changer de cap. durant tout ce combat bi nga xam ne moom ngeen def euh, mën nañ ne sax depuis 2016 bi ko rajee mu bokk dem élection présidentielle après gis nañ dossier bi fi jugoon mois de mars ñu tas parti Pastef jàpp ko euh, après ngeen samp yeneen candidat entre temps da ngeen a jàpp que ni réussir ngeen euh, par rapport ak li ngeen ci bëggoon wala c'est un échec c'est une réussite et la réussite jeexagul bala ñuy àgg fi ñuy woowee réussite mooy ñu jël réew mi téye ko suñu loxo mais la vraie réussite ce sera le développement du Sénégal parce que ñun li ñu bëgg du jël réew mi kese mais dañu bëgg jël réew mi ba pare développer ka parce que jël réew mi doyul mais développer moo am solo aujourd'hui Ousmane Sonko acharné wu nañ ci moom depuis 2016 wax nga ko lu ne def nañ ko lu ne daj nañ ko ñoom dañu yaakaar ni loolu Ousmane Sonko rek la ñu bëgg mu nekk au pouvoir Ousmane Sonko mu jël réew mi wala keneen jël réew mi ku nga xam ni il est de la trempe de Ousmane Sonko looloo yem donc ñun lii ñu da gis réussite la ci ñun euh, cest à fañ ñu doon séenoo ñun dañu génn feneen fu nga xam ni neex na sénégal yi lool muy jomaay Faye te je crois que bu fekkee ni tàyyiwuñu ñun du ñu bàyyi parce que nag ba la bàyyi ñu jël réew mi teg suñu loxo parce que gisuñu fi kenn ku nga xam ni aujourd'hui mën na taxaw ñu am popularité ko war ko utiliser mu bën jaar ay stratégie ba du ñu utiliser suñu popularité dégg naa yu bari ñu koy wax ay recul d'élection stratégie gouvernementale la pour man. Hmm. pour man mën nañu opposants ko njëkk a avancé avant même. mais ce n'est pas des opposants man jàppewuma ñenn ñu opposants ah. attention un opposant doit vouloir abréger la souffrance de Sénégalais te prolonger élection yi mu dem. ñu dàq que loolu dafay prolonger souffrance sénégal Sénégalais yi. Boubacar Camara da nga ko mën a génne opposition. mais pour man nekkul opposition képp ku wax ni dañuy reculer élection pour man yow waroo ko génne c' la population ki doit décider aujourd'hui bu ñu demoon ba ci fin bi population bi ni ah attention fii mu nekk de élection yi il faut ñu euh, reculer ko mu jóge ci population bi d' accord mais warul jóge sur un leader. leader warul mën a taxaw wax loolu leader dafa war a nekk sur le champ de bataille leader dafa war a nekk à côté des gens yu nga xam ni dañu euh, salfaañe seen àq ak seen leader dañu lay dégg ci Pape Sané mbay mi euh, li ko dal ak ñeneen ñi nga xam ni injustice bi total am na lu ñu wax lu dul reculer élection moi je crois que boo dee dénoncé am nañu dañoo jàpp que ni c'est pour euh, la paix pour que préserver la sécurité du pays parce que jàpp nañ que ni les conditions ne sont pas réunies pour dem ci élection yoo xam ne euh, mën na dem dans le calme et la sérénité peut-être bu ci buñ ci demee xëy na lu ñu foogul mën na ci am maanaam luñ ñaanul loolu moo tax ñoom ñu wax que ni faw ñu nañ ko reporter waxtaanaat mais c'est des propositions de, juste yu ñu def. deux mille vingt et un. Mm-hmm. Ah, ba léegi nekkuñu ci stabilité ah. réew mi mi ngi jax mi ngi yëngu te terewul ñu def élection législative nit ña dem liggéey ñun dañu bëgg mars avril mbir mi jeex ki war a toog toog liggéey ki war a dem dem bu fekkee ni dañ koy woo pour mu jàppale ñu mu jàppale ñu. parce que loolu yëpp mën na nekk parce que nous les considérons comme des frères comme des amis ñoom ñoo ñu jàppee ay ennemis di indi animosité di tëj di dóor di xas di rey waaye ñun li ñu leen jàpp mooy suñu ay frères lañu c'est des sénégalais aujourd'hui bu ñu jëlee réew mi tamit la ñu ca war a redresser dinañ ko redresser bu ci seen loxo waree xaj dinañ ci dugal seen loxo donc ñun foofu lañ ko teg Ousmane Sonko n'est pas leur ennemi. loolu yàgg naa di ko wax mais ñoom dafa mel na dafa am ñeneen ñu leen di roof xalaat yu nga xam ni amul dara lu ciy dëgg ñun lii daal Ousmane Sonko dañu jàpp ni mbiru yàlla la te bu ko jeexalee mu jeex te réew mii nga xam ni dañ ko war a jël kenn mënul tere pour ñun ñu jël ko incha allahu rabi. Mhm. par rapport ak li ñu gis nga ne kenn mënul tere ñu jël ko incha allah euh, am na ay yeneen euh, dans l' opposition même dans le pouvoir euh, ku mel ni Amadou Ba tiitu leen sa non Amadou Ba moom mooy tiit suñu candidature. Mhm. ñoom dañu yaakaaroon ni ñun du ñu am candidat. dañuy obnubilé wu ci benn candidat rek continuer continuer xam nga yàgg nañu Sénégalais yi naa ñu wax leen ñu seen plan B wax leen ñun leen stratégie kenn du ko teg ci kaw taabal bi. amu leen plan te bu ñu xamee foo jëm. doo àgg politique du ëmb day wasin nañ xam loolu lépp lu ñu gis mu xëy suba juddu rek nañu xam ni bu ñu wane woon biir bi comme bala muy juddu ñu euh, fexe ba rey biir bi ci biir yaayam kon looloo tax politique du ëmb day wasin loolu nañ ko xam sénégalais yi ñu wax leen ko ñun nag am nañu plus d'un tour dans notre ñoom dañuy def stratégie ñun ñuy def stratégie te wóor nañu suñu stratégie mooy triompher parce que moo nekk ci dëgg parce que yàlla ne dafa bind ni dëgg mooy jëkk mais dëgg mooy mujj dëgg googu sax euh, président de la République Macky Sall am na lu mu ci wax parce que am na ay tuuma yu jël ngàllu ko ci seen ndodd ginnaaw bu mu doon def ab entretien ak su ay naataangoo yu Jeune Afrique mu wax que ni yaa a des soi-disant